bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo déggee sunnaam mooy lam wax wala lam def wala lam gis nit ñi di ko def tarawat leen ko lii la ñu wax sunna si gàttal pour nga mën koy dégg soo déggee kenn mu ne lii mooy sunna xamal ne lii la yonent bi wax sallallahu alayhi wa lii la def wala si jamonoom nit ñi lii nañ naan defee lii mooy sunna dundal loolu di ko jëfoo sanjo goɗɗi ko jefo nga ootni ndi jëm si sunna jooju loolu mooy nasiha lillah wa li rasul nasiha li rasul mooy laaye biir sang bi salallahu alayhi wa sallam bokk na si laaye biir sang bi salallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne bidaa la nga sori ko bidaa mooy lan lii dee xeeti jaamu yàlla la nit ñi ni mu koy jaamoo yàlla waaye sang bi salallahu alayhi wa sallam xamul gisul li may bi tàkk lii dee nit ñi ñu ngi see ut yàlla waaye sant bi sallallahu alayhi wa sallam mosul see utee yàlla subhanahu wa taala lii dañuy wax bi tàkk mosul see utee yàlla subhanahu wa taala xamut ko mosul koo jaamoo yàlla Aboubacar mosul koo jaamoo yàlla Omar mosul koo jaamoo yàlla Ousmane Ali mosul koo jaamoo yàlla waaye saxaaba yi dund leen ba dee xamuñu lii dañuy wax bi tàkk so yimɓe bida ara xamal ne lii mooy bida nga sori ko lu bon la si diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wa kulla bidaatin dalala wa kulla dalalatin fi nnar bépp bidaa rek nga xam ne réer ak lu mu rafet rafet te bari na tey ñu ñaan koy jaamu yàlla waaye nañ xam ne suñu eggee si borom bi subhanahu wa taala ña doon jëfandikoo loolu duñu am tiyaabo si ngir yàlla yónniwut leen man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yónni te Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale ñu mbir ولأئمة المسلمين لا هي بير بوب تامي ديني كو جوخ نجيتي جوليت في ورن ني في التحول ني ياتال واي وقت بي وان شاء الله دينا نديد دينا ان شاء الله دينا ندير واسي كلمه بي ولأئمة المسلمين نحن xamné ñoo jité نحن dañ leen نحن di leen jox advice di waaye nasiha boobu advice boobu ñu leen a jox dafa am yoon ngir borom maqaama la borom place la sharia moo ko ko jox yàlla moo ko ko sédd te ku yàlla sédd ñu war a xam ne kii borom bi subhanahu wa taala moo ko sédd kilifa la dañ ko war a jox nasiha mooy advice dañ ko war a jox laalee biir ñu laalee ko biir waaye dafa am yoon du ma ñëw njiit ni kilifa gi president bi di ko jox nasiha di ko ko joxe si kaw mimbar ñëpp ngi toog di ma déglu ñenn ñaa ngi arrêté ma ma ne bi laa jox lan advice loolu nekk advice luñ koy tuddee mooy xaste loolu imam shafii wax na lu mel noonu dafa nuloon ne xaste la ngir soo jox nit advice si biir mbooloo advice lo ko léegi yaa ngi koy xaste te njiit duñ ko xas duñ ko saaga dañ koy ñaanal laaxe ko biir li leen ci bi sallallahu alayhi wa sallam digal doo ko def si newspaper def si télévision bi def si internet bi waaye soo ko mënee da def li leen bi sallallahu alayhi wa sallam wax si loxo wéetoo ko moom advice su alhamdulillah sant yàlla su nangul la war def nga ko yàlla waaye jasaaka bi xaste loolu tubaab yi ko jàngal wallahi képp kuy jullit man lay oo nga bàyyi sa xel du jur dara lu baax lu bon rek la moo jur ak fitna ak raye ak deret bu tuuru rek la moo jur na ngeen baax loolu yéen ay jullit ngeen yéen ay ngeen na ngeen roy si muhammad sallallahu alayhi wa na ngeen roy si bakr abu bakr nañ ko roy ngeen roy ngeen roy أمهات المسلمين أمهات المؤمنين كما أن خديجة كما أن عائشة كما أن حفصة نن رئيسيني من أي جنود لك لك لو خمنا تواب إلينا ننك ننك تكتسين القرآن بيسيقا يسير نحا القرآن أكسونا جلنك سوك جلنك نمو سوك جلنك يبهيك تواب قصدي دي سابر دي دي سابر دي دي كو سابر دي دي دي دي wallahi du te du jur jàmm la may jur rek musiba yàlla moo xam fan la jàmm nekk loolu tax mi tere ñu mbir nii du jur su doon jur jàmm bonoon dinañu ko tere dinañu ko digal waaye ba ñu ko tere si lañ xam ne du jur jàmm képp koo xam ne yaa ngi yëngatu si lii lii mooy sa liggéey lii mooy sa wax na nga ragal yàlla wattaqu yawman turjauna fihi ila allah na ngeen ragal bés bu nga xam ne di ngeen dellu si borom bi subhanahu wa bakkan bu tuuru ngir yow yàlla dina la ko laaj subhanahu wa taala bépp xeer xayr boo xam ne bépp yiw boo xam ne jóg na palaasam ngir yow yaay sabab bi xamal ne borom bi subhanahu wa taala dina la ko laaj na nga ragal yàlla ba leen di saaga nguur ba leen di saaga kilifa ba leen di saaga kilifa ba leen di xas kilifa ba leen di wulee kilifa na ngeen ko ba bu diine kenn du nangu koo xam ne sa kilifa romb ñu saaga bon bu ko def kilifa jàmboo loo ko xeeb xeeb xamal ne keneen def na ko kilifa soo ko saagee kooku dina la ko delloo delloo yooyu su bëree mooy nekk ay fitna na ngeen ko baax xam ne ne du jur jàmm moom borom bi subhanahu wa taala lii lañu digal nañ jox président bi advice nañ jox alkaali bi advice nañ jox ministre bi advice waaye niñ joxee advice dañ ko war a dellu si diine ni jàngal waxuñ ne duy juum day juum doomi aadama la waxuñ ne defut lu bon mun naa am def na lu bon ngir doomi aadama la waaye dafa am yoon buñ koy jubante du nii jamono bi ko defee tey di saaga ndey di binda di xaste di binda di droo di sànni si internet bi loolu fitna rek la mu na ngeen ragal borom bi subhanahu wa lii du suma wax waxi borom bi la subhanahu wa taala képp ku ko teggi waxi yàlla nga teggi képp ku ko déggal nga jëfoo ko yàlla subhanahu wa taala waxam ak kàddam nga jëfoo yàlla ya ñu yàlla ya xiir si boppam wa ammatihim ak julit yëpp ñu joxante advice su ceebu caam mistake ngeen jox ko advice su keneen mistake ñu jox ko advice mi nooy oyof yomb lool ngir ma mën koo jël waaye suñ ñàggasee mi diis mi nekk ay xaste du nga ko mun a jël ngir lan doomi aadama bëgguñ ko koo toroxal si biir nit ñi looloo tax ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne addiinu an nasiha rawahu muslim wal fii la ñu am subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk